lamb ji dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo ko yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix dur prix dur. xeex lamb joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. boo ko nag ñu dugg biir koo rek maa la gën a xotteeku fuuf xotteeku yow man man may yàqu la waaw man damaa yàqu waaw maa la gën a xotteeku ku nekk ñu tàggoo yàqu di dee mais yow joxe nga sa accord yow waaw non non ñu amuñu problème benn problème non amuñu benn problème ñu waxtaan ak promoteur bi dégg non amuñu benn problème waxtaan Makan ñu waxtaan ak ñëpp ok pour Balla waaw non non combat bu ñu ci rek buñ gars yi di ko son fan bi mooy staff rek sama boole amuñu problème am na aussi ñu wax sa diggante ak loolu aussi waaw promoteur yi moom ñu dox suma combat mais incha allah ci kàttanu yàlla muy ñaari camp yi ñuy dox suma combat mais ku ci dégg ak suma staff waaw man demal bëri ji laa ma dem bëri ji. mais dafa mel am seen bëri euh, Balla Gaye moo gënal. non ku ci ñëw rek ku ci ñëw rek. wàllu say ñëwee nga jël a taxaw rek. wàllu say ñëwee nga jël. non bu gars yi déggoo sama sàmm. ah mais waaw Alioune Seye xam nañ li bëri kër nga nga wane ko. waaw Alioune Seye numéro 2 nee na buy bëri ak yow ku bëri la lay waaw xam nga mooy li rek làmb moom ku ci nekk wax mbër la rek. dañ koy jàppee nag ku ci nekk nag mu wax sa xalaat ma mais maa ngi profité tamit aussi ci occasion bi di félicité suma rak waaw waaw waaw suma rak suma xarit c'est vrai lay muy rëg rëg Omar kan Omar kan vraiment am nañ contentement boo xam ne am na fu mu commencé mais amul fu mu jeexee maa ngi wax ci turu champion turu leader yëpp sport yëpp que ni kontaan nañ ci moom ndam bi yemul sax Sénégal mais dafa sigil Afrique yëpp kon rek rek man sa rakk sa xarit maa ngi lay ñaanal yàlla na la victoire jik ak suñu yeneen frères yi war a dem tamit représenter drapeau Sénégal waaw am nañ contentement mais mais mais vraiment mënu fi nekk ah du dugg waaw def ko yoonu tool. def ko yoonu tool. xanaa géej waay daa nekk di dugg na du loolu dafa nekk loo xam ne xëy amateur yi bëgg nañ ko xam nga. waaw ñëpp bëgg nañ te gis nañ tamit aussi mooy nekk loo xam ne maanaam kenn mënu kenn mënu moytu sa morom. yaa ngi ñoom non kenn mënu dafa nekk loo xam ne vraiment combat la bu ñëpp soxla mu nekk ko choc combat boo xam ne combat la bu àdduna bi xaar. mais sa diggante ba loolu rek quoi. est-ce que na woon est-ce que woon na woon. Balla daa mel ni soppi. Balla léegi ñeme na dindi ñeme na dindi ñeme na contact bi ñeme na suuf. yàgg naa ko soo xool yu bëri dem naa ko champion xam nga am. ay cinquante cinquante quelques ans waaw ñu tenir booy ba am vingt sept ans tenir bu métti kon sport liggéey rek la laaj lamb amul secret sport amul secret liggéey la waaw gis nañ ko mu ngi liggéey liggéey bu ci ay bu baax <laughs> mais ko gisee ah. liggéey bi non dama tàmm di wax man nii laa mel ah. Ah. mais sa laqatu nga ko moom non gis naa mi ci état ah liggéey bi baal donc gisee baal nga non mi ngi ci état de forme bu yéeme état de forme bu nekk baax na nii non nice nice waaw li ñu dem séntu ci moom pour mu kii ko gis nañ ñu daal fan nañu. waaw gis nañu bëgg na affaire yi quoi muy jóg bu baax mais combat royal bi nag am na. waaw waaw kon mooy parce que nag. nag si te ñoo bokk salle bu ñuy. entraîné ca def live xaw ma def def. waaw combat combat royal bi ñu def loolu promoteur bi nga tëgg ñu ñëpp ñu jugandoo rek jàppandoo ci ñaanal ko mu réussir ci combat bi événement bi. fekk na combat boo xam ne combat bu neexal ko. si te ku gëm lu muy wax la champion. waaw te mbër bu loolu wax daal ko kenn xeet. mais mais euh, am mais tamit aussi Modou Lo nekk na champion Modou naka la bëri te tamit champion man mi mu daan rek déjà loolu hmm, yéen ci man roi da ngay indi champion la. ay sens ay sens su Siteu fan la fan la nekk. comment sens Siteu. fan la ci xeex bi ci bëri bi. non ci xeex bi ak ci bëri bi honnêtement. gars yi bëri nañu wax ne lii xëy na xamuñu ko bu baax mais la ku am kàttan la surtout waaye si néewul doole te mën na bëri waaye bari mbër dafay am changement bu gaaw ci deux mois ci lu ko mbir mi di entraîné champion la waaw boo gars yi ñàmbale non mi ngi liggéey non sa tamit dafa màgg mais si ta amee bërki démb ci face à bi ñu bari jàpp ne si sañ-sañ ba bari na ah am ñu jàpp ne sax dafa mer mais sañ-sañ bi muy waxee man sañ-sañ bi laa seetlu sañ-sañ boobu muy wax dafa muudu jàpp ne moom du booy ñaar te du ama ne li nga yor bu ma boo ko bëggee te damay dagg sa loxo sañ-sañ boobu si tay waxee. waaw mais ngëm-ngëm boobu ko amul ñun jarutul kon mi nekk mbër c'est normal mooy xale dafa war a mën a dëgg loolu muy am gëm lay wax xëy na di nga débat mbër dina wax wala sportif di wax. état de forme mun na ko pousser tàngoor muy pousser voilà muy maanaam voilà exemple waa mi waa mais suñu ko waxoon xam ne ku yàgg mais loo koy may ci combat bi loo koy may la mais tamit mi ngi bëri le grand champion Modou Lo champion la soo xoolee dernier combat yi def moo lay wan nii euh, ba pare boo xoolee yaram bi xool physiquement nga xool rek xam nga gëm entraînement la bàyyeekuwul la tamit aussi. waaw combat du combat bi neex na ñaan jàmm Sénégal ay gagné. Fabry bi mën nañu wax ni Modou Lo mooy Fabry mais taxul mu daana aussi macha allah ndam moom yi suñu borom la hmm. mooy xool ko neex mu jox ko lu wax tout temps rek di nga daan mbër deful yàlla lu tax yàlla suñu borom xañ ko ndam mais ki daan tamit deful yàlla lu tax yàlla suñu borom la ndam yi fi yàlla suñu borom la mais l'essentiel bi daan na nga entraîné ba boo tëggee bu nax sa bopp xamal yow liggéey nga hmm. supporters yi tamit aussi ak amateurs yi Sénégal sax ñoo bëgg jàmbaar boo ñëwee wanal jàmbaar mais bu wanee benn nga lay nit ñi di xeebee wala def amateur ñu fay sa nga fa xanaa de. waaw bu yàlla defee jàmm rek bu yàlla may ñu temps rek dinañ ñëw incha ok gars yi. ay nag liiru. liiru war a def. waaw mais Sénégal bi yëpp ñaanal parce liiru tamit aussi grand champion la. est am nga ci yaakaar ci liiru. man ma liiru. wan leen ma liiru. man ma gëm. mooy liiru day gañ. li ngay ko teg parce que gis naa la ngay lamb cuisse yi sànq loo loo daj loo daj. cuisse yi gis naa nga koy lamb. lan nga daj waaw sànq teste naa ko. waaw mais xam naa tànk diir yi. Ah? tànk buy yëg diir yi. tànk buy yëg diir. waaw. ah nga mën entraînement kenn ci nax. lii romb te. balaa eh. koy entraîné ne. waaw entraînement ngi comédie nii. waaw mais ma ko testee saako. waaw gis naa ne ndëgëraay bi ne ci biir kuy yëg ku dul yëg di yow fañal ko. combat bi nag mën na ma am confiance ci lii. honnêtement sérieusement est-ce que adversaire boobu la war a jël. koo xam ne day doon nit mu daanu. boo xoolee combat bi xam ni dafa ñeme xeex. liir daa ñeme xeex non non. liir ragalul xeex non si man combat ma ak wulli laa xool. waaw xam ne der la non sans blague la. waaw encaissé na ay coups. waaw ba pare te coup bu ko mën a encaissé taxaw riposte ko. Uh-huh. doo ragal te ku ñeme nga. gis naa ko mu xeex ak moom xeex boo xam ne jël ko wécce uh-huh. ba pare ñëwaat ci biir. Hmm. di xeex di xeex di xeex bu combat bi jeex. kon liir di dëggal boppam. dëggal weq bu jógee nag est-ce que liiru mën naa weq. non liiru xamoo ne yéen lu bëri loo xam ne amul la si tool. mais dafa lâché dafa ku la wax ci tànk yi gënu neex dama gis mu jeex lu wax tànk yi non dafa naan mais ama liiru du xale de wala mag la de liiru mag la de ama sa te tamit naa la xamal dara waaw waaw liiru xëy na am na lu bëri loo xam ne waaw te di nga nit su entraîné dëgg dëgg dëgg ba mu mel ni war a mel dafa war a jeex mais bëtu looy lay de tigre subi subi ñu xool subi ana bët yi liir liir liir may ma may la ma ci baax la waaw. yor ju koy sportif non non non ndax. wax sa baaxu waay wàññiwul rek sa baax. ndax li mu wax baax rek ko waral. champion la ku baax la yal na la yàlla defal saa vraiment kontaan na si li <laughs> ma waxaat waaye déglu ba xotuma waxi bal la man am ba kii laa bëgg Alioune Seye ngir yàlla doon fi la ma la ko ñaan nga may wax sax naa mu takk jabar su jëlee ma ngir yàlla yokk baax la mu rafet <laughs> ama min nga géej way de min nga ko de Mohamed mu ndaw nga ma wax loolu soo ma ko waxee am na foo bëgg a jëm moom laay sible dégg nga Mohamed mu ndaw su ma waxee loolu cax la am na foo bëgg a jëm cax la tey tax na ku ne sa xel foofu ba léegi. sa <laughs> xel foofu ba léegi. yow maa ngi wax Aliou Seye nga ah, liiru xanaa da ngaa ragal ëmb. nga ko ma ciy ragal man amul lu waaye lu ma ciy ragal. mi ngi liggéey su dee bàyyi Mouhamed la bëgg rek. waaw dëgg dëgg la ragal géej waaye ragal dëkk waaye man Aliou Seye laa bëggoon nga jël. mais dafa am benn vidéo ma gis. waaw mais lan ci wax man dama jaar. lan la eh. ci yow. waaw loo dégg rek man. ah loo kuy nii ba dugg naa suñu combat da taxaw. maa non non du ma ak yow. ah du ma ak yow. sama wàllu la raadu da maa waxal lu baax léegi da maa waxal lu baax. yow yow sama gars yi waaw lu yàgg du tey lu yàgg la. dama bëgg sama roñaan yi est-ce que du ma sibile sibile am seen xel sa xel sa xel yow kon ba léegi mu ngi wax xalaat nga yow daanaat déedéet way mbër yow ah, ah yow bi laa gisuma lool parce ah. que Serigne Ba loo gis loo gis ba su boobaa moom damay miraas sama bopp ah. la ilaha illallah <laughs> lii dama jaral lu ne. man goor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo ko yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg gis prix tour prix tour. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bugguma ñàkk. waxuma laaj nag ñu dugg biir koo rek. maa la gën a xottee fuuf. xotteeku yow man man may yàqu. la wax man damaa yàqu. waaw maa la gën a xottee. ñu tàggoo yàqu di dee.